jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp ci 24actu euh, point com ni ñu leen ko doon defalee boobaak léegi euh, di seeti euh, kilifa yi ngir waxtaan ak ñoom te ji nag ñu nekk ci kër Serigne Modou Mamin Mamoun Mbacke Fallilou ngir waxtaan ak moom ci jëmm ju sell jooju waaye yeneen i ponk ñu fas yéene ko ànd ak moom sang bi gannaaw bi ñu leen nuyoo moo bàyyi la nga nuyoo ak ñi lay topp ci 24actu point com. waaw jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina mawlana wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallim taslima subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli allahuma ajalna min alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana wajal kalaami wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida barkeb Cheikh al Xadim ñu ngi nuyu mbokk yu tedd yi ñu seetaan yëpp ci biir réew mi ak ci bitim réew ak ci dëkk bi ak fi ma nekk ci àdduna si leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jiital ci nuyoo bi nag Mawlana Cheikh Mouhamadoul Mountakha xalif général di ko ziare di ñaan ko ñaan di ko ñaan mu yàgg fi te wér li muy liggéeyal ak li mu bëgg liggéeyal Serigne Touba lépp mu àggale ko ci sago dañu fekkee tu ànd ko ak moom moo ñu koy ñaanale Cheikh Aboul Baraka muy jëwriñ di kilifa kër Serigne Fallou mu yàgg fi te wér ba li muy liggéeyal ak li bëgg liggéeyal sëriñ Fadlu di ko liggéeyal sëriñ Tuubaa lépp ma àggale ko dañ fekk ko ànd ko moom loolu lañ koy ñaanale Cheikh Abdoul Bachir miy jëwriñu kër gi ak Cheikh Abdoul Fatah mi porte parole kër gi yor kàddu kër gi ak Cheikh Amadou Mourtada mi topp ci moom ak nun ndongo yëpp di di siyaare ñëpp di sàkkut ñëpp ñaan di ñaanal ñëpp di ñaanal bokki taalibe yi di ñaanal mbir ak mucc ak xéewal jabootu sëriñ Tuubaa gépp ak jullit yëpp ak Sénégal gépp jërëjëf jëf macha allah tey jii nekk bis boo xam ne dañu koo jagleel Cheikh Mamadou Lamine baara lan nga ñu mën a wax ci jëmm jooju. waaw Cheikh la Lamine Bara nag doo nit ku baax euh, moom euh, dañoo seq yu bari yu bari lañ seq ci wet wala wàllu mbokk gi wàllu wëllëree am na ñu seq yoo xam ne maa moom dañoo mag yooyu mën su ko wax ci média ndax dafa yàgg te ñu seq ko euh, mu doon koo xam ne ni ngeen ko xamee leeru suñ fàllu la nekk ñaareelu xalifaam toog fi ñetti at yu riche yoo xam ne dañuy wax ne ñett fanweeri weer la waaye daanaka xaw na wati fan fanweeri at liggéey fi liggéey bu rëy amoon vision bu rëy ci yoon wi amoon vision bu rëy ci àdduna amoon vision bu rëy ci développement ndax yàlla ko dimbale mu doon borom xam-xam yàlla dimbale ko mu doon mag yàlla dimbale ko mu dox lu bari xam lu bari ci àdduna danaan wax ne 1945 ba fi ma toog li fi jaar lépp dafa ma leer ne sama rëdd baaraam yi leere donc mooy nitu expérience te ni ngeen koy waxee mu yàgg ci touche bi xam lu baree baree baree bare ba nit ki noo ñëwee ci moom rek mën na la ko mën na la mën la mën na la mën naa jëflante ak yow mën na jëflante xale ba gën a tuuti mën na jëflante ak mag ma mën naa jëflante kilifa diine ga mën naa jëflante kilifa adduna ga mën naa jëflante ak chef d'état ba mën naa jëflante ak kilifa ga noo mën a doon moo xam julit nga moo xam doo julit ndax xam ngeen ne mbàkk gi bari woon na fi xarit naar yoo xam ne bari na ñoo xam duñuy julit waaye jaxasoo nag ñoom jaxasoo koo xam ne buñu toogee da ngay da ngay wax benn layal ñoom loolu expérience am la doon borom cër bu rëy nag daan ko nëbbu waaw xam ne trompé nañu bari waaw waaw sëñ Baara trompé nañu bari man yàlla dama dimbale ma teel koo xam waaw am yu bari yu ñu séq yoo xam ne bu daan nëbbutu soo ko bëggee wane ko xam naa la sax day day day soppi waxtaan waaw te it daan doxee noo xam ne li ma ci fit bariwul ñu ko am waaw waaw sëñ ci fit am ko ci njàmbar am ko ci gëm sëñ Fallou moom moom la ko ñëpp seedeel moom nga xam ne magam ju baax yi Cheikh Amadou Moussa Fadilou dana wax ne bu doon seet ku gën a ku gën a bëgg sëñ Fallou dañuy wax ne Alaaji Baara ndax wax ne guddi sax boo ko boo ko wooyee doo ko bett soo ko ne Alaaji na nga def mu ne sëñ sant sëñ Fallou kooku alaaj mu ne waaw na nga def mu ne sant sëñ Fall kooku moom ñëpp xamee nañ ko ko boo doon seet këram nag fi fekk turandoo sëñ Fall kéemaan la waaw loola dem na ba ci gis nga bi muy demee sax bisam bi dafa dëppoo bi sëñ Fall bi nga xam dafa teel ñu koy màggal di màggal sëñ Fall suba lépp doolu di benn waaw muy koo xam itam gis nga li ci dëkk bi rëy na te amoon vision ni koy waxee dama dafa amoon vision ndax dafa waaw li mu dëkk ci 30 30 mois yoo xam ne ci la nekk ci yoo xam ne ci la nekk sëñ Touba waaye réalise fi loo xam ne daanaka liggéey 30 30 ans la te amuñ vision nag boo xam ne bu ko fi yàlla bàyyi woon dana liggéey lu rëy rëy ci yoon waaw ndax dafa bari expérience euh, bari fu jaar bari lu mu xam ci àdduna si yàgg tukki xam lu baree baree baree bari waaw bu ko defee rek ñu mën a wax ci moom lu baree bari ni ma ko waxee rek euh, te te te day ñut borom cër bu doon nëbbu xam nga loolu ñu bari xamuñu ko ci boo gisee ni daan solo ni mu daan waxee ni mu daan defee da ngay defee am am fu bari doo ko foog waaye gis mu toogee waaw na ñu mu sax ci ay mbokk yoo xam ne bi mu toogee nekk nañ ci barab di waxtaan ne yoon wi six mois lañ ko lañ ko lañ ko appal mu tas waaw pas tas waaye ku ne dem sa bopp xam ne yoonu suñu doon tas waaye six mois lañ ko appal ku ne ku ndax jàpp ne booba xëy na waaw kaay loolu suñu mu ci àgg waaye loolu lañ bëggoon a wax waaye def naa ne bi mu toogee quelques yoon wi waaye mën naa yor àdduna <laughs> mën naa yor àdduna loolu da ko doon nëbbu doxalinam la waaw te xamoon na ne am na fu mu jëm waaw loolu ñu boo jaxasoo nag moom da xam ne kii xam na ne am na fu mu jëm. waaw xanaa simplicité am waaw loolu daal bokk na ci simplicité am ak gëmam sëñ Fallou. Mm-hmm. waaw ndax gis ngeen daan solo mm-hmm. man da yàlla dama baax woon ci tout tànk yi ma am ci nekkam yëpp moo leen tudd mm-hmm. tout tànk yi nga gis yi nekk bi ñëpp nga xam ne ci kanamam lañ juddoo ñëpp moo fi ñëw tudd si leen am na ci yoo xam bu ñëw may lus lay sol daanaka bu si wax doo xam teg dara du teg mu mag ci suba teel li fi ñëw waaw boobu simplicité néewaa na nga gis ko ci moom da nga gis saa bu xëyee dem dem léeg nga fekk ko ci mécanicien yi mu toog ci léeg nga fekk ko Sonatel dafa demoon ba am fa bureau sax bureau laaj baata <laughs> waaye lépp nag ci yërmande ak yërmande ak waaye ak intervention maanaam defe ne ku am problème moo moo ko war résoudre xam ne euh, intervention bi bari taxawoon na ba ñu wutal ko bureau Sonatel man numéro fixe bi ma njëkk am moo ma ko wutal ba ba ni mu fi jógee fàttewu ko parce que boobu numéro yi xam nga 75 de Touba yëpp tàmbalee sama numéro ba léegi mooy 18 62 75 18 62 ba bi mu fi jógee su ma gisee mu ne ma 18 62 fàtte fàtte ma ko de <laughs> <laughs> daan defee intervention ci abonnement téléphone mhm. intervention ci abonnement euh, Senelec mhm. ku xamoon àdduna dalal mhm. ku amoon yërmande ci nit ñi itam la waaw bëggutoon daal kuy tooñ kenn waaw loolu moom